tabaarakallaahu moom barsax lañu daan ragal te barsax sécurité rekk a fa nekk leneen nekku fa mbooleem ñi ñu suul ñu gis tabaara yàlla rekk a sañ vingt cinq milliards mu ndëxëñ leen ci biir suuf si vingt cinq milliards d'individus yàlla ndëxëñ leen ci biir suuf si bu deful woon sécurité barsax àdduna tukki bàyyi nag sept milliards ñoom ñuy taxawaalu ci kaw suuf ñii di bay ñii di liggéey ñii di togg añ ñii di togg reer sept milliards yi nekk ci kaw suuf waaye vingt cinq milliards a ngi tëdd ci biir suuf si bu sécurité amul woon ca bar sax àdduna tukki wala ko waaye sécurité rek a fa nekk nag kenn du la jox kayitu ndox kenn du la jox kayitu courant waaw waaw kenn du la fayu impôt kenn du la laaj dara tabarkala bu fekkee da nga nekk soppe yonent bi rek nekk fa waaw ah, kooku lu ko dàq amul lu ko dàq amul ci bar sax bu bonoon سما تورندو كنتو كو تود برزخ المختوم مالك واخ مالك فموسي فمصيبة نكون شيخ كنتو كو تود البرزخ المختوم القطب المكتوم والبرزخ المختوم كون كنتو كو تود يلا خمنكو ديسان سما باي بو sëriñ Habib Tall bi gaañoo radiallahu taala ba mu tëddee ca lalu hôpital la ma yónnee lettre jox ko Pam Malick di ko jox ko Cheikh Pam Malick indi lettre bi ma jàng ko mu ne ma bu la nit ñi waxati maktum rek yem ca nañ lay wax al qutbul maktum <laughs> ku baaxoon la ci man wallaay ndeysaan ku baaxoon la ci man ku baaxoon la ci man ma ni ko ah, bi ma amee juróom ñaari weer ci àdduna laa jëkk gane yàlla xam na ko yàlla xam na ko allah jaab du kan nii bàyyi leen ma ma dem seetu ko ca ndar sëñ Babacar ni ko ñemewuñu loolu nan ko gàddu indil la ko noonu lañ ma gàddu yóbbu ñetti fan laa fa am daanu feebar ala jàpp du ko kenn du ko faj bu ko kenn jox garab bu ko kenn faj dañ ko bàyyi présence su turandoo ma diis ci moom àttanu ko lu mooy li ci ne te Alaaji Abdu Kan la Alaaji Abdu Kan du nitu jaaxaan du nitu jaaxaan yàlla xam na ko loolu nag sant yàlla rek a ci war wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallahi wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan ndeysaan xaadi Mohamed Abdurahman nee na ma dama nekk ci situation bu difficile nee na sama mbokk yi ni ma danga war a dem ziyaare ji yonent yi pour diis ko ko nee na ma ni leen damay dem diisi ko Haj Malik ndax du teqalikook yonent bi kon moo tax ba mu ñëwee ba tiim bàmmeel ba mu ne mu mu wax ki ko doon digal loolu mu ni ko xalili ya uj wanzil bi saaxati dal qabri nazuruhu li islaaxi lmuhimmi min al amri li islaaxi uxrana wa islaaxi didduna wa maxwi xataayaana wa ma kaana min wusri seetal loolu te boobu moom la ñëpp yaakaar mu ñëw tiim ba melu Maodo di ci wax loolu pour wax la ni tabarkalla tabarkalla sant yàlla rek moo war sant yàlla rek moo war tabarkalla tabarkalla yàlla may na nu mag ñu baax ñu amul morom ñu amul morom tabarkalla yal na ñuy jëriñoo seen xalaat yal na ñuy jëriñoo seen xam-xam yal ñuy jariñoo seen leer tabarkalla tabarkalla yàlla leen ko defal yàlla moom dafay seet ku ko neex rek mu defal ko loolu moo ci nekk fa tabarakallahu man nag naka jëkk dama leen a def espèce doomu bàjjen ba noppi ñuy sama sëriñ boole ci ci ñoom lay jànge ci ñoom lay jànge tabarkalla tabarkalla ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan amin amin amin amin yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan Allein deshalb.